Mor jaar naa la. fay naa la doom day waaye sant yàlla bu baax. laal sa njaxas. sunu doom day rek mu kii nu mu tooti euh, fils de Katy moom la àndal tey oyofal bis bi nag mooy loolu yàlla may si ndam lu sedd guy guy guy. waaw dañ ko oyofal nii rek dañ ko oyofal nii rek. bis bi ko diisal. dañ ko non non. lii moom jigéen Baye Fall gi la dund nii rek. soq bu dee jaxaay xam ne duggoon na fi juum tey mu ñëwaat. ndox du bàyyi yoonam ndox du bàyyi yoonam fi mu jóge ba jëlee fa defet fi mu jëm ni moo ko gën diis. billaahi. fi mu jógee fi mu jëm tey bii nii moo gën mu euh, bis ba mu jógee moom. kon dafa juum juumaat waaw loolu la dëgg la moom balaa koy xam balaa koy xam na heure bi soufflé ba tegee ba wàcce loxoom. nee nii xeex la fas yéene indi si combat bi nii. non day wax rek du xeex ak Aliou yooru la commencé indi si combat bi day yooru de maa la ko wax de bu yooruwul bu yooruwul mën na daju de. bu yooruwul bu yooruwul mën na daju de. est de Katy dina ko def. fils doful sax ñun duñu ko conseil. Ah. ñun duñu ko conseil moom lu mu indi rek. ñun takk nañ si rib. ñun tax nañ si rib. seen yëfa. Eh, ñun bawal bawalee ko moom. moo tax seen yëfa. waaw moo tax tamit. wàccaay fu mu toll. Ah, bi ñoo ngi rek. ñoo ngi si di xaar date am. waaw ñu commencé liggéey ni ñu daan liggéeyee mooy loolu. ñoo ngi nag liggéey bi ñoo ngi ci waaye mooy loolu tàmbale guñu normal normal. Ndour nga am. waaw ah, waaye Youssou Ndour moom daanaka wax ji bareetul ndax moom tollut ni gaa yi euh, tollut ni yoo xamante ni yi nga xamante ni suñu écrit tollu ni moom diisul ni suñu diisul mënta gi diis suñu benn poids lourd écrit ku ci mel ni morpuy moom gënu ko diis ku ci mel ni njaaxum gënu ko diis waxatuma la sandareb ba gris junior kon ma maanaam man damay dalal sama xel adversaire nga daan am at moom bokkut waa adversaire yooyu moom day wax rek doog a am adversaire nag man gëw ma daanu de daan laa gëm. waaw man gëw ma daanu daan laa gëm gëw ma ko nag man daan laa gëm. combat bi sa diggante ak Youssou Ndour di nga xaar moo ñëw jaaga. mu lépp mën na ci am. moom xeex moom. moom waaw day xeex. man daa jàpp na man ñimiwu ma ko wala wala dama ko ragal maanaam bor bi na fir barki Sëñ Faaw laa jël bu xeexam xeex moom su bëree ma bëree ak moom. moom jaaga sa diggante ak Youssou xeex. Youssou Ndour du xeex sax. ndax daa foog ne bu xeexee daanu xeex xeex moom du ko def. sorte ah, xeex. yàlla baax na yàlla baax na ba daje fa rek. nee na moom ñeneen ñu mës a bëree rek. yow yàlla na ak ñun rek yàlla na yàlla ànd ak ba euh, làmb ja yàlla may si ndam lu sedd guy. ñu ngi lay bëggee baax a baax. delloo bëggee bu wér.